baarakallahu aaudu billahi min alshaytaani irajim la hawla wala quwata illa billahi alaliyi alazim alhamdulillahi alqail fi muhkami tanzilihi wala yazaaluuna muxtalifin wasalaatu wasalaamu ala alqaili al arwaxu junudum mujannada fama taarafa minha talaf wa ma tanakara minha ixtalaf ورضي الله عن الصحابة أجمعين ومن تنهج نهجهم بالهدى والإحسان إلى يوم الدين mbokk majmuwa waqul jaa alxaqu wa zahaqa albaatilu dellusiwaat nanu am yéenay mottali li ñu fi sumboon ci diggante ñaari mbokki daara ñaari boroomi xam-xam yu wuute gis-gis ci benn masala muy seex Ismaël Guèye waaye ak seex Baye Niass masala mi ni benn di benn xadis boo xam ni ñëw na ci biir téere yi seex Baye ni xadis bi wér na péng waaye itam am nay argument yu tax mu ni wér na seex Ismaïl ni ko ah, xadis bi day ci man wérul de ndax am nay argument yu may wan ni wérul su boobaa la sàkk ku nekk indi argument am bu ko defee man mi toogoon di déglu te man xàmmeewuma addis bu ràggat bu lompañ damay déglu argument yi Ismaïl am ci ni wérul bu daanelee ma teewlu xaddis yi Cheikh Baye am ni wér na comme nag comme nag déglu nañu Cheikh Ismaïl wax dëgg lim xam ci xadis bi xam ko ci ñi laal ci waxi xadis bi wax dëgg yàlla indi na ci loo xam ni ah nee na ko bëcc ci pénc mi nag li ci wér ñi doon teewlu teg nañ ci seen bët li ci wérul ñi doon teewlu teg nañ ci seen bët li nuy dute ci wér naam wérul ñi doon teewlu teg nañ ci seen bët fa lillahi alhamdu wa sukuru ginnaaw bu nu ko jaajëfalee ndax wax dëgg yàlla defal na ko yitte jëlal nañ ko taamam lu bare bare bari ak énergie am léeg mu jeexal connexion daw dégg nga rechargé waat ngir rek ngir rek ngir rek bëgg loo lu ñu jariñoo loolu dañ ko ci jaajëfal bu baax a baax a baax lim teg lépp nag moom man mën naa ni gannaaw buñ ko jëfalee sant ko ci gërëm ko ci mooy xadis bi moom gësëm nga ko gësëm nga ko lool nag moom xadis biñ fi sampoon moom gësëm nga ko de gësëm goo xani bu continuer ci ngësëmam googu moom mën naa daal di daanu Cheikh Baye mi ni woon hadis bi mënoo ko gësëm nag mënoo koo daaneel mënoo ko daaneel sax la wax donte mënoo koo daaneel bokkul ak mënoo koo gësëm comme gësëm nga ko indi ak li nga jot indi ci ay preuve donte li ma soxla woon lépp boo ko indi woon moom man man man man man ma seppi addis bi sànni jàll ba waaye li nga jot indi moom indi da ngaa gësam rek waxuma ko nag ndax taasuban indaka wala taasuban inda Seex Baay waaye dama ko wax parce que loolu nga fi indi comme résultat bu ko defee comme gësëm gi dong ci nga am dañuy teewlu Cheikh Baye ba xam moom da koy jële ci gësëm googu sampaat ko wala dalay fekk ci gësëm gi ngeen daaneel ko ndax itam xam nañ ci yéen ñaar ñépp ni ku ci jàpp mbir ndax defe ni dëgg la booy dox di dox di dox di dox di dox di dox ba yëg ni ah lii ma jàppoon jàppoon ni dëgg la ndekete du dëgg seede nañ ci yéen ñaar ñépp ni dellu siwaat ni lañ jàppoon day wax dëgg dañ koo jàppoon waaye nag njuumte la woon loolu jombalewuñ ko kenn ci yéen ñaar Cheikh Ismaïl bu jàppee ni wérul ndax li ko gëstoo may bu ko ku ko sut gëstu indilee lu ko convaincre ci ne ko yaa ko jàppoon de waaye ndekete wér na Cheikh Ismaïl dana dellu si waat joxe loxo ne ah kon la ma gëstu woon a doyul waaye kon lii dekete wérul waaye itam Cheikh Baye mi ni woon wér na bu fekkee ni Ismaïl lii mu jotu a indi convaincre na ko jombalewuñ ko mu ñëw joxe loxo ne Cheikh Ismaïl ay la yéwén fekk si naa la ci ndax man li ma jàppoon ay njuumte waaye yow li nga jàpp mooy dëgg bu doon dëgg rek lañuy wër ñaari dina ci am bu juddoo ci biir waxtaan wi. te yaakaar nañ ñi dégg dong lañ doon wër xam-xam dong lañ bëggoon mu juddoo ci te xam-xam juddoo na ci lii Cheikh Ismaïl indi euh, xam-xam juddoo na ci xam-xam juddoo na man xamee naa ci Abdurazaq mii ndekete am na yu ko gaa di jiiñ wax dëgg yàlla lii ma xam ci Abdurazaq mii maa ngi ko xamee nii nii nii ci laaj ak tontu yi doxoon suñu digganteeg Cheikh Ismaïl te yaakaar naa ni itam bu seex bàyyi ñëwee danañu indil moom it loo xam ne xamuñ ko woon kon su boobaa xam-xam biñ bëggoon daanaka juddu na la ñuy wax dañ koy sant yàlla gërëmee leen ko yéen ñaar ñëpp bu ko defee Cheikh bàyyi la ñuy bàyyi bu dee mi ngi ci ligne bi mi ngi dégg kàddu gi mu dugg nuyoo directement ñu tàmbale ak moom ci laaj yi ak tontu yi allah di ñaan mbokk yëpp ñu teewlu comme niñ ko tàmbalee woon borom xam-xam yaa ngi ci tuus yi. du man dong may dirigé débat bi waaye borom xam-xam yaa ngi ci tuusi borom xel yu rafet yaa ngi ci tuusi lépp loo xam ne laaj naa ko euh, te waruma ko woon laaj daañu ma ko wax ci suuf lépp loo xam ne bëgg nañ ma laaj ko Cheikh Baye te laajaguma ko ngeen wax ma ko ci suuf incha allahu rabbi feek zéro heure gën jaa sori moom Cheikh Baye incha allahu rabbi daañ ko mën a yeewi ndax bu dee da koy sempi dina ko sempi bu dee da dina ko sampaat kon seex Baye al microphone amaamakum wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم salaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Malick ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziyaara euh, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waaw incha allah di déglu sa laaj baarakallahu aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Serigne Cheikh Baye ñoo ngi lay ziyaara bu baax a baax di la masawu coono rawatina yi nga yendu tey yëg nañ ko ñoo ngi la ci masawu bu baax a baax di ñaan yàlla mu yokk yàlla coono yi yokk yàlla leen ko yan yokk yan bi waaye mu téeñal leen ko yan bi tiim leen rek wax dëgg yàlla ngeen yóbbu ko ca fa gën a kawe ca yaakaaru maam yaak bàyyi bi ma xam di fadlihi wa juudihi wa karamihi sëriñ seex Baye comme ni ñu la ko waxee noonu ci iftitaax bi pour dugg ak yow ci waxtaan wi pour indi xadis bi nga xam ni tabaarakallahu yaa ko fi cëppeeloon ni wér na Cheikh Ismaïl Gueye ànd caag ñu bare ci ni xadis bi daal wérul nga ni leen xadis bi wér na buñ la doon laaj tey xadis bi wér na wala wérul dañ koy tàmbalee ci isxaaqu mii nga xam ni moo nekk ci bopp isnad bi isxaaqu mii ban preuve nga ñuy jox Cheikh Baye bu ñuy wan ni isxaaq sàngam la ban preuve nga am preuve bu bu bu palpable bu ñuy wan ni isxaqa sàngam la comme moom balaa duri bari nay isxaq abdurazaq ma ca kanam daan ci ñëw bari nay isxaq isxaqu mii ci boppu isnad bi dégg nga ban preuve nga ñuy won bu ñuy duut baaraam ni isxaqu mii isxaq sàngam la première laaj baa ngoog euh, waaleykum salaam wa rahmatullah waaw sëriñ Malick ñu ngi lay jaajëfal bu baax di la ziyaara di wax amin ci ñaan yàlla ñu fa yàlla boole bi jeexe rasulillah bon hadith bi de man maa ko fi indi woon te yaakaar naa bi ma ko fi indee balaa ma ko fi indi gis naa ko ay at ci ginnaaw en euh, li nga xamante ne wax nañ ko ci aussi alhamdulilah am na lu fi ci gis mbokk mi nga xamante ne moo ko doon weddee fii li mu wax dégg naa ko <clears throat> mais bil jumla il faut que d'abord ñu wax balaa ñuy tontu faj atan ci laaj bi xadis bi ñi nga xamante ne ñoom ñoo koy weddi que ça soit ñu koy weddi ci Google YouTube ak euh, site web bi tudd Mukaafihu subaxaat ak euh, Facebook sax euh, donc ñi koy weddi ñëpp ñaar ba ñetti shubaha rek lañ ciy def premier shubaha bi mooy isxaaqu bi ñu ne isxaaqu dabari la bon deuxième shubha bi après dinañ ci ñëw incha allah waaye li mooy premier shubha bi comme ci nga commencé léegi nag man damaa wax ne xadis bi Isxaaqu ibnu abi Israil moo ci nekk euh, te li tax ma wax ko am naa ci samay adilla première bi dinaa jéem a ndox ak mbokk mi nga xamante ne moo ko weddi kem fi nga xamante ne foofu la doon waxee du ma weesu foofu baxsu dafa am ay yoon yoo xamante ne boo ko jaaree dina la mën a jox lumière ci li nga soxla Abdurazaq ibnu Hammam moom mooy raawil alaaw xadis bi ci sanad bi mën ngaa wax ni moom la ndax problème bi ni mu ci tëddee léegi diggante Balaazur yi ak Abdurazaq benn waaye bu ñuy wax Isxaaqu dox na fi pour nga mën a taxliil Isxaaqu boobu kan la il faut nga xam Abdurazaq taalibe mi tudd Isxaaq ñan ak ñan lañ ba pare nga xam Balaazur yi sëriñam mi tudd Isxaaqu ñan ak ñan lañ maanaam. léegi boo xamee sëriñ mi tudd Isxaaqu ñan ak ñan lañ moom Balaazuri léegi da ngay xool kan ak kan a ci jàngee ci Abdurazaq boo xamee taalibi Abdurazaq yi tudd Isxaaqu ñan ak ñan lañ da ngay xool kan ak kan ci ñoom moo ci jàngal Balaazuri léegi buñ delloo ci téere Jarh wa Taadil yi da ngay gis ne Abdurazaq ibn Hammaam as-Sanaani am na ma dangay da ngay gis ne Abdurazaq ibn Hammaam am na euh, juróom benn taalibe yu tudd Isxaaqu première bi mooy Isxaaq ibnu Ibrahim alhanzali ibnu Rahawey cheikhul Bukhari deuxième bi mooy Isxaaqu ad-Dabari troisième bi mooy Isxaaq as-Saadi quatrième bi mooy Isxaaq at bi mooy Isxaaq ibnu Abi Israil sixième bi mooy Isxaaq ibnu léegi pour nga xam ci juróom benn yii te li wér mooy isxaaqu ba ci balaa zuri moom nee na ci abdurazaq la jëlee léegi pour nga xam ci juróom-benn isxaaqu yi ban la ci mooy il faut nga xam ci juróom-benn kan moo ci jàngal balaa zuri léegi ñun buñ delloo ci tarjama balaa zuri dañuy gis ne boroom xam-xam yi ko jàngal te tudd isxaaqu te nekk ay taalibi abdurazaq ñaar lañ isxaaqu ibnu rahawayhi la ak isxaaqu ibnu abi israil te boo delloo ci ay téeréem moom balaazur yi danay riwaaye léegi léeg di leeral na ci isxaaq ibnu abi israil la jëlee bu fekkee ne yoon bi jaaru ci abdurazaq pour mu leeral waaye leeral na benn yoon rek ci ansaabul ashraf ci isxaaq ibnu abi israil ci yoon bu jaar ci abdurazaq pour nga xamee ci ne lépp luy ñëwaat ci kanam bu tuddee isxaaqu même bu ibhaamee boo gisee abdurazaq ca kanam rek xamal ne isxaaq ibnu abi israil mii la waaye buñ delloo ci tarjama ishaaqu dabari mi nga xamante ne moom la mbokk yi bëgg a dugal ci isnaad bi pour tashwish da ngay gis ne ishaaqu dabari mësta jàngal balaa balaazuri bal mësta dajeeg balaazuri kenn kenn limut benn boroom xam-xam limut ishaaqu ishaaqu dabari ci sëriñu balaazuri yi benn boroom xam limut balaazuri ci taalibi ishaaqu dabari yi kon mënuñoo am wax mu ne moom la lii première tahqiq la boo xamante ne buñ ko defee rek nga xam ne balaa balaazuri automatiquement digganteem ak Isaaqu Dabari benn lien lié wu leen moom Isaaqu ibnu Abi Israil ñoo am lien kon fii la léegi bu fekkee dañoo bëgg a wax ne beneen Isxaaqu la war a doon déedéet beneen Isxaaqu boobu est-ce boobu bu mu mënti doon est-ce jëlee na ci Abdurazaq jëlee wu fa Isxaaqu ibnu Abi Israil moom moo jëlee ci Abdurazaq ba pare jàngal Balaazuri Isxaaqu Dabari jëlee na ci Abdurazaq naam waaye jàngalut Balaazuri kon Balaazuri mënta riwaaye ci moom donc Isxaaqu ibnu Abi Israil kott la mën a doon lii mooy premier subha yi nga xamante ne mbokk yi dañ koy teg te man laaj naa benn laaj boo xam ne ñoom buñ ci tontoo rek man ma teggi sama tànk mooy nañ ma indil fenn fenn fenn fu ñu wax ne isxaaqu dabari jàngal na balaazuri wala fu yi riwaaya benn benn xadis wala benn wax jëlee ko ci isxaaqu dabari buñ ko indee rek man ma teggi sama tànk waaw kay jazakallahu anna xayral jaza Serigne seex Baye macha allah li nga indi sax na ci Abdou Razak bari nay taalib yu tudd Ishaq tudd nga ci juróom benn Ishaq waaye balaa yi nii nettali xadis di moom sëriñ yi mu am ñu tudd Ishaq ñaar la nga tegtaloo ni Ishaq ibnu Rahawayhi lay doon Serigne Buxaari yi ni ko waxe mbaa. mu nekk Ishaq ibnu Abi Israil waaye itam Serigne Cheikh Baye nga jox ñu ay mën naa ko tuddee ay ay ay ay adilla qawliya ci ni balaa zuri nii amul ci ay sëriñam Ishaq ibnu Ibrahim ad-Dabari Ishaq ibnu Ibrahim ad-Dabari itam amul ci ay taalibeem balaa zuri loolu wax nga ñu ko nii rek. mais est-ce que daañu jox benn marji wala bu wala wala wala benn waxu borom xam-xam bu ñuy dellu moo xam bu ñuy xoolee tarjama suri la wala ñu xoolee tarjama Isaaq ibn Ibrahim ad-Dabari la ba xam noonu nga ko waxee noonu lañ ko fekkee fekkeem déet bu fekkee am nga ko yow par texte wala par image dugal ko directement rek ñu jàll wa illaa wax ma turu téere ba ma xooli sama maktaba insha allahu rabbi ndax xam dana koo fekk te yaakaar naa ni maam téere boo amul sax moom fooguma ko <laughs> Euh, waaw loolu kay yomb na c'est-à-dire ci bépp téere tarjama taarixul islam bu zahabi seeru alaami nubala tahzibul kamal bu mizdi taarixu wasita bu bahchelu wala nu mu tuddati taarixu xalifa bnu xiyat mboolem téere tarajim yi yoo xamante ne tarjama nañ eh, ishaqu addabari wala tarjama nañ balazuri doo gis fenn fuñ boolee kii ci sëriñu kii wala kii ci taalibe kii du am Ishaaq ibn Abi Israil lu ma xamal ne sëriñu Balazuri la wala taalibi Abdourazaq la mooy ne damaa dellu ci tarjama Abdourazaq gis fa ñu tudd fa Ishaaq ibn Abi Israil dellu ci tarjama Ishaaq ibn Abi Israil gis ñu tudd fa Abdourazaq ci sëriñam yi ainsi de suite donc dellul ci bépp téere tahdibul kamal moom généralement dafay faral di eh, tawsiya ci loolu mën nga ci dellu nga xool tarjama Ishaaqu Dabari wala nga xool tarjamaay Balazuri doo ci gis ñu boole ci kenn ci taalibee kenn te ba pare aussi istiqra ci téere Balaazuri yi dafay wane amul benn riwaaya bu mu jëlee ci Isxaaqu Dabawi loolu moom yomb naa xam yomb naa saxal mooy da ngay wër téere Balaazuri yi rek ba fépp foo gis Isxaaqu Dabawi rek nga xam ne kon riwaaya na ci moom ndax Isxaaqu ibn Abi Israil man tamit bañ bindee ne euh, nu mu tuddati sëriñu Balaazuri la wala bañ bindee ne Balaazuri yi taalibeem la du yomb a gëm waaye da ngay topp téere Balaazuri yi nga for benn riwaaya bu mu riwaaya ci Isxaaqu ibn Abi Israil nga gis ne lii lu concret la kon donc noonu rek lañ koy kiyee yomb na dellul ci bépp téere euh, surtout tahzibul kamal bu mis bi bu la neexee barakallahu sëriñ bàyyi Baye loolu mu indi wax dëgg ñu koy déglu xam nañ ba xam convaincre na leen wala convaincre leen waaye xam-xame na duuf na macha allah yi daal bala ñu ko jéeñ isxaqam yi nañ xooli balazuri tarjamaam man xooli naa ko fekkuma fa isxaq ibn ibrahim ad yi wa kazalika tamit Isaaq ibnu Ibrahim ad-Dabari gisuma ci taalibeem al-Balaziri kon loolu mënees na koo jàpp kon Dabari mii moom duñ ko dugal ci hadis bi ay ca waaye Isaaq ibnu Abi Israil sax na ni sëriñu Balaziri la Ishaq ibnu Rahawayhi sax na ni Balaziri la ah, sëriñu Balaziri la kon ñoom ñaar ñëpp jamtalu na ñoom ñaar ñëpp jamtalu na mu nekk Ishaq mii Balaziri junj bu dee Ishaq alhanzali ibnu rahawayhi sax moom mi nga xam ne moom mooy sëriñu Buxaari yi moom bu doon mooma sax xadis bi moom dañ koy gën a daaj waaye dañ ko gën a sempi ndax ishaq ibnu ibrahim euh, ishaq alhanzali ibnu rahawayhi mii nga xam ne moom mooy sëriñu buxaari kii moom wax dëgg ku ñu fonk la ci xam-xam bi di hadis bu ko defee kon dañuy jàll ci deuxième laaj bi sëriñ Cheikh Baye ishaq moom kan la xamuñ ko xamuñ ko bi maana rahawayhi la wala ibnu abi la kum ci mën a doon hadis bi yëngatoogul mi ngi daaje ba léegi waaye nañ continuer euh, bakr ibnul haysam nii ñu fi tudd donte ismail gay newoon naa ko mën nañ koo tëb parce que euh, buñ ko dégagé woon sax du laal xadis bi mais yow duñ ko tëb parce que yow da ko bëgg a daaj comme tudd nañ ko fi bakr ibnul haysam nii dafa am ñu wax ni amul tarjama loolu dëgg la wala du dëgg Euh, waaw je pense que est-ce que laaj bi du du ñu tardeel parce que comme ni nga xamee xadis bu fekkee ñu ngi waxtaan ci xadis boo xamante ne ni fañ doon soxlaa di indi Bakar ibnul Haysam am na tarjama wala amul tarjama mooy ñu xool ndax euh, euh, riwaaya Balaazuri dafa jaar ci kaw Bakar ibnul Haysam c'est-à-dire Isxaaq mi nga xamante ne ci moom la yi jëlee wax ji ndax dafa jëlee ci Bakar ibnul Haysam boobaa ci la ñuy soxla tax Bakar ibnul Haysam mais comme aptu ci beneen yoon la bu bokkul xaddasanaa ishaqu wa bakar ibnul haysam donc buñ jaaree ci kaw bakar ibnul haysam jaar ci abdourazaq dañuy teggi ishaq par force parce que mënuñu leen a boolante buñ jaaree ci kaw ishaqu jaar ci abdourazaq dañuy teggi bakar ibnul haysam boobaa donc yaakaar naa amul amul solo pour ñuy indi ne am na tarjama wala amul tarjama ala ayati haal euh, majhul dafa am ay façon dafa am majhulul huwiya majhulul hawiya am majhulul ayn am majhulul majhulul adala donc bakar ibnul haysam mi xasba yi nga xamante ne ñoom lañ indi ci téere jarxu wa taadil yi indi wuñ mam donc majhulul hawiya la ñuy wax indi wuñ tarjamaam waaye nag loolu du yàq dara ci xadis bi parce que atfu la ci xadis bi rek yàqul ci dara alors donc yaakaar naa ne war nañ ko mën a tëj ñi jàll ci Abdourazaq moo gën ñi wu ci moom di lekk nag boo delloo ci yeneen téere yu mel ni euh, at-tadwin fi axbaari qazwin di nga gis foofu ay asar yuñ indi moom tamit yuy wane ne Bakr ibn al-Haytham yi kaana maarufan parce que am na yeneen yoon yu ñu jëlee ci moom ay hadis te ba pare Balaazuri moom ci boppam bëril gi muy bëril riwaaye ci moom te mu nekk ci tabaqa Balaazuri te Balaazuri huwa maaruf dafay wane ne kaana maarufan te xaaliban da ngay gis ne waaqidi wala moom bakk na dafay jëlee ci waaqidi te ku nekk ci tabaqa boobu noonu kaana maarufan léegi nag bu fekkee ulamaaw jarh wa taadil yi tarjamaa luñ ko maanaam indiwuñ ne kii diw la tudd diw mooy baayam diw mooy yaayam loolu mun da yàq dara ci hadisam delloo ko am na beneen yoon boo xamante ne mën nañ ci itimaad jàll directement waaw koy barakallahu sëriñ Cheikh Baye ñu ngi la jaajëfal baax kon daal Bakr ibnul Haysam nii moom xëy na buñ ne majhul xayru maaruf dañ ko amalul tarjama ci téere yi xëy na kon ñi doon tabtu asmaa'u rijaal yi xëy na ñoo ko utalul tarjama waaye xas ba ma taqul ni nga waxee mooy comme balaa yi moom bariyaana mu koy tudd kon moom bu turam amul ci asmaa'u rijaal itam moom wax dëgg moom am na ndax kenn ci ñi ñuy tudd te ba noppi muy boroom xam-xam ci euh, domaine bi muy Baladuri su baree lu mu koy tudd parce que dafa am parce que dafa am donte nag ñi doon takk tur yi moom indiwuñ ko waaye moom ak dàqoom du neex dindi lii la fi seex bàyyi sambu waaye moom bu dee góor ñiñ daan xam parce que am nañ tarjama ba buñ waxee wax ñu xam ñooñu ñu mu ñooñu moom fekkuñu ko fekkuñu fa Bakr ibnul Haysam ci biir téere yi bu dee dégg ngeen ko ni ma ko déggee loolu la bëgg a wax. léegi dañuy dem deuxième question wala troisième question seex Baye dafa am ci boroom xam-xam yi ñu bare bare bare bare yoo xam ni teg nañu ay ay ay ay preuve ci di bi biib hadis. naa la ci jox kenn wala ñaar ke ci njëkk ma ibnu taymiya ibnu taymiya bokk na ci lim wax ci xadis bi nee na aw fen la rek wu ñu sos dugal ci biir téere yi waaye du dëgg euh, wax jooju mu wax moom ibnu taymiya ak ñi mel ne moom ci ñu koy dàq boo bëggee dàq seen wax yooyu yow seex Baye bëgg fee samp lu gën a wér ñoom la ñuy wax loo ñuy wax euh, alors waaw sëriñ bi ibnu taymiya xam nga dafa nekk nit koo xamante ne ñëpp a ko xamee taasub ci bani umayyata ak tamit euh, ifraat ci ne dafay raddu chia yoo yaay loolu yóbbee na ko ci minhaaju sunna muy radd ay ahadis di weddi ay ahadis yoo xamante ne léeg-léeg ay ahadis mutawatira la ñuy doon loolu ibnu hajar al asqalaani ci boppam saxal na ko ci téeram bi tudd ad durarul kaamina fi ayaani miati thamina ne moom jàng na minhaaju sunna fekk ibnu hajar waaye fekk na ibnu taymiya muy ay hadis yu bëri yu sax ci yonent bi loolu albani tamit radd na ko ci ci silsilatul ahadis saxiha que moom daal yéemu na ci ne Ibnu Taymiya di weddee yenn xadis yu sax ci yonent bi bal yenn xadis mutawaatir sax daf koy weddi lu mel ni xadisu allahuma waali man wala man kuntu mawla fa mawla daf koy weddi lu mel ni xadisu ñu euh, seeti taraktu fiikum maa in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaaballahi wa itraati yi nga xam ne mu ngi ci saxiix muslim daf koy weddi c'est-à-dire li muy def mooy boo ko indilee xadis mu nekk ci Buxaari mu ne la muslim riwaayawul ko donc duur muttafaqun alayhi kon duñ ko ixtijaajee boo ko indilee xadis mu nekk ci muslim mu ne la Buxaari riwaayér ko wala mu ne la insaha bu fekkee wér na donc mu ngi sikki sàkk ci wér boo ko indilee xadis mu nekk ci ñoom ñaar yëpp muttafaqun alayhi mu ne la ñoom Ahmad ak ñoom Nasaa'i ak ñoom Ibnu Maaja riwaayé wuñ ko donc Buxaari Muslim doyuñ pour riwaayé xadis ñoom ñaar ko foog ñële boo ko indilee xadis mu nekk ci borom téere yëpp mu ne la xadis bi riwaayatul ahad la duwul mutawaatir boo ko indilee xadis mutawaatir mu ne la xadis bi madlul bi muy joxe duwut nii donc koo xamante ne talaa'ub boobu lañ ko xamee ci nusuus yi duwut kuñ mën a def taw tawsiq ci genre masala yu mel nii waaye ba tey hadis bi ibnu taymiya indi na ko ci minhaju sunna ci ñaari bërëb première bi mooy ci volume 4 ci page 433 deuxième bi ci volume 4 ci page 443 te ñaari bërëb yëpp boo ko xoolee da ngay gis ne beneen riwaaye la indi bu bokkut ak riwaaye bii ñuy wax ñun riwaaye bii ñuy wax lu mu wax moom daf ne Abdurazaq moo jë Abdurazaq moo jëlee ci Maamar Maamar jëlee ci ibnu Taawus ibnu Taawus jëlee ci Taawus ibnu Kiisan Taawus ibnu Kiisan jëlee ci Abdullahi ibnu Amru ibnu Taymiya lu mu wax wa qad rawaa Abdullahi ibnu Umar ci volume 4 ci page 433 kon yoonu ibnu Umar la indi bokkut ak yoonu ibnu Amru yaakaar naa ibnu Umar ak ibnu Amru am na benn waaw bu leen tàqale mu ne ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam fa sami'tuhu yaqul damaa ñëw dégg yonentu bi di wax yatlu alaykum rajulun yamuutu ala gayri sunnati fa tala muawiya fa qaama annabiyu waxut fa qaala annabiyu de fa qaama annabiyu xatiban fa axada muawiyatu bi yadi ibnihi yazid wa xaraja bon bi boo xoolee matan bi ibnu taymiya ko indee nga xam ne mënta wér parce que bu dee yazid ibnu muawiya la yazid ibnu muawiya jamono Seydina Omar la doogu judd xaw ma jamono Seydina Ousmane tout cas ba bi Seydina Babacar di génn kon mënta judd ci jamono yonentu euh, ñaareel bi xaamal na biyu xatiban bi dafay uuteeg xadis ba nga xamante ne ñun moom la ñuy wax mooy ne euh, maa ngi jégalu ci audio bu gudd bi ma ne dafay uuteeg xadis bi nga xamante ne ñun moom la ñuy wax mooy ne abdullahi ibnu amru moom moo ñëw ci yonentu bi dégg yonentu di wax yatlu alaykum min hada alfajji rajulun yamutu ala gayri millati fa tala muawiya fa qaala huwa hada waaye bii daf ne fa tala muawiya fa qaama annabiyu xatiban kon bokkuñu yow ñun dañoo jaar yoonu Kaolack yow nga jaar yoonu tam yoonu yoonu yoonu Gorée lu ci suñ yoon bu weddee xadis bi bu weddee xadis bi ñun ci suñ bopp xadis bi mën nañ kaa weddi parce que Yazid ibnu Muawiya bu dee matan bii la matan bii munkar la parce que Yazid ibnu Muawiya jamono bii yonentu di dund Seydina Babacar di dund sax Yazid du doogut kon matan bii munkar la waaye man damaa jàpp ne Ibnu Taymiya peut-être daf indi pour réeral juhaal yi nga xamante ne ni seen bët yi amul tusngal bu ko defee ñu ne Ibnu Taymiya weddi na xadis moom moo ko tey yu mel ni koy def lu bëree bëri ci man topp naa yooni xadis bi yëpp ci yeneen téere yi mu ñëw yëpp ci ummahaatul kutub gisuma ci yoon bu wax ne ay Muawiya jàpp loxo doomam Yazid am na beneen xadis bu ñëw nag bu am maanaa bi waaye xakam ibnu abil asla ak marwan ibnul xakam waaye moom moo tay li muy def nii pour bëgg wax ne xadis bi matan bi munkar la parce que waaw Yazid ibnu Muawiya ndax bu ko indee nii ba pare dafay ñëw raddu ko ci ginnaaw gi kon caaxaan yi ak foo yi lay def ci nusuus yi looloo tax nga gis ne ñun pour ñun Ibnu Taymiya matul ni sax weñ maanaam amul darajaay yoo ndax talaaw bi mel ni koy def ci nusuus yi ñaareel bi ñun Abdullah ibnu Amr ibnu al-As la ñuy wax waxuñ ab waxu Abdullah ibnu Omar ibnu al-Khattab bokkuñ fuñ juddoo bokkuñ xabila moom xadisu abdullah ibn omar ibn xataab la indi bu ko neexee mu dàq sanat bi dàq matan bi suñ yoon nekku ci dàqal ñu xadisu abdullah ibn omar ibn laas lañ la laaj euh, bon bi euh, ba léegi ci xadis boobu noonu volume quatre dinaa dugal photo bi bu ma pare ibnu taymiya daal di continuer di wax ne xadis bi fa axaza muawiyatu bi yadi bi yadi ibnihi yazid wa xaraja wa lam yasma walam yasma alxutba dégluwul xutba bi fa qaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam laana allahu alqaida wal mawquud xam nga lii matan bi boo ko déggee nii xam ne munkar la comme ni ma ko waxee sànq Yazid ibnu Muawiya judduwul sax ci jamono yonentu te Muawiya benn at wala ñaari at la dund ak yonentu boobu amagul sax doom après gis nga fii laanu lañ wax euh, ñaareel bi ci minhaaju sunna ci volume 4 ci page 400 43 ibnu taymiya indiwaat mu ne wa amma qawluhu wa qad rawa abdullah ibnu umar ataytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam moom indi même matan bi encore même matan bi mu indi woon fële donc da gis ne ibnu taymiya la muy wax ak ñun la ñuy wax bokkut moom xaj sanadu abdullahi ibnu umar lay wax ñun sanadu abdullahi ibnu amr ibnu al aas la ñuy wax bu fekkee benn benn nit lañ nañ ñu ko wax en tout cas ñun ci luñ jotoon na xam bokkuñu Euh, Casa kii kii la nu mu tuddati Angleterre Computer la ñaareel bi sanad bi ñuy wax fa ta fa talaa Muawiya fa qaala huwa haada la moom sanad bi matan bi muy wax kon man ñun matan bi ñuy wax mooy fa talaa fa qaala huwa haada moom matan bi muy wax fa talaa fa qaama xatiban ba léegi Angleterre Computer la xaaral ma dugal photo yi ngeen xool farqu bi nekk ci diggante li Ibnu Taymiya di wax ak ñun li ñuy wax ngeen xam ne mbokk mi nga xamante ne moo ko doon indi muy yonentu yàlla Ismaïla Gueye astaghfirullah sëñ Ismaïla Gueye allaamatuna daf ko indi parce que amul tamyiz amul tamyiz ñun nag alhamdulillahi rabbil alamin di léegi xamuñ dara waaye at tamyizu indana bayna al fidda wal qabda mutayassir wa kazalik at tamyizu indana bayna al aalimi wal aalami mutayassir aydan donc xam-xamu hadis loo xamante ne boo ci amul yenn tamyiz yi pour nga di ci dugg dafa yomb ngay fakastalu moo taxoon ba mu commencé rek ma ne ko na bàyyi noonu parce que xam naa ne yu mel ni dina ko ci daal te man yi gisoon naa ko xaaral ma dugal leen photo yi ngeen euh, macha allah Serigne <laughs> Cheikh Baye ñu ngi lay jaajëfal baax a baax a baax a baax waaw laaj bi ñu laajoon tabaarakallaahu li nga ci indi ci ay addil la moom wax dëgg. man de iqnaa na ma maa ngi ñu bare ndax li ñu laajoon mooy li borom xam-xam yi wax ci xadis bii pour nërmeel ko ñu la ko laajoon yow nga bëgg koo dajji looy wax ñi ci waxoon de bari nañu waaye man jàppoon naa ni Ibnu Taymiya moo ci gën a dëgërle li mu wax te moom ay la yëwan jalax nañu ay waxam parce que lii muy jalax moom ñun bokkut ak li ñuy wax su boobaa kon Ibnu Taymiya bu ko kenn tuddati ci xadis bii ci riwaaye bii ci matnu bi Ibnu Taymiya waxul bi waxul bi bu doon bii la bëgg a wax dana indi matnu bii indi isnaad bii comme nag mat nu beneen la indi indi yeneen i isnaad dàq leen fali alhamdu wa su boobaa kuy wax naan ibnu taymiya dàq na ko waxal bam dàq waxul bii de ibnu taymiya bi ñëwee ci lim bind maa ngi nii tiim sama minhaaju sunna ma Cheikh bàyyi indi na ay paasam ak i photom ak i écriture am xool leen ko nii nii la ko Cheikh ibnu taymiya waxee bu dee nii la demee nag ibnu taymiya hadis bi muy dàq ku ne mën na koo dàq waaye xadis bi ñuy waxtaane moom bokkul ak bi ibnu taymiya di dàq lii moom leer na nañ ci teg si sëriñ seex Baye léegi defe naa mën nañoo dem directement ci mën nañoo dem directement ci ki nga xam ni moom moo topp ci moo topp ci isnaat bi gannaaw Ishaq moom ak Bakr ibnul Haysam foofu bëggoon naa fa dugal benn laaj ci Bakr ibnul Haysam door a dem ci Abdurazaq directement euh, mën nga koo boole ci audio yi ngay tontoo incha allah Bakr ibnul Haysam mii ñu tudd ci xadis bi bu ñu effacé woon Isxaaq Seex Baay comme saxal nga ni balaa duri bariyaa na léeg-léeg muy tudd Bakr ibnul Haysam nii léegi kon bu ñu effacé woon ishaq mii comme bu ñu effacé bakru xam nañ lu résultat bi du joxe waaye bu ñu dégagé woon ishaq samp bakru bnul haysam kese ci xadis bi xadis bi continuer su boobaa xadis bi nu muy mel Cheikh Baye na nga ko tontuwaale en même temps bu buñ ci demee Abdurazaq am na lu ko gaañu di jiiñ est-ce que dëgg la nee ñu chiites yi la est-ce que chiites yi googu ñu ko askanale dëgg la bu dee dëgg la ab chii dañu daan dégg ñu naan lépp lu ab chii wax ci bani umayya ay waxam jarul jàpp est wax jooju dëgg la Cheikh bàyyi euh, waaw kay première laaj bi mooy waxu Bakr ibnul Haytham bu ñu effacé ci sanad bii nii bàyyi Bakr ibnul Haytham xadis bi mën nañ koo jàng ci yeneen mutaabaat yi mu am ak yeneen shawaahid yi mu am ak yeneen yoon yi ma am. que xam nga ni ñuy wéralee xadis ak ni ñuy sadee fi xadis dafa am ay yoon yu ñuy jaar xadis mën na ñëw fii nekk daif waaye ñi mën koo wéral nga dégg ñu ne la saxiixun li gayrihi wala xasanun li gayrihi loolu yaakaar naa dañ koy dégg ci mooy ne xadis bii ñëw bu dee xasanun li gayrihi la ñu wax xadis bii ñëw bi xaddi zaatihi daif la waaye xat yan jabiru mën nees naa jàngu buñ indee yeneen mutaabaat yeeg yeneen shawahid yi te xadis bi dafa bëri ay mutaabaat ay shawahid ci tabaqa bu nekk tabaqa ishaq ibn abi israil am na am na ay mutaabaat tabaqa tabaqa bakr ibn al-haytham am na ay mutaabaat yaakaar naa lu ma juróom-ñaari mutaabaa bu ma juumut xaw ma euh, ñeent tabaqa abdourazaq am na ay am na ay mutaabaat wala ay shawahid kon ay shawahid tabaqa ibnu Taawus am na ay mutaabaat tabaqa Taawus ibnu Kisan am na ay mutaabaqaat tabaqa Abdullah ibnu Amr tamit am na ay shawaahid shahid ak mutaba bokkuñ xaw nañoo jege waaye am na leen di utale ñi jàng hadis xam nañ lu leen di farqu donc buñ bàyyee Bakr ibnul Haysam hadis bi bi haddi zaatihi dafay nekk daif li euh, li Bakr li sabab Bakr ibnul Haysam parce que majhulul hawiya la waaye dees na nekk dees na jugee ci daif boobu nekk xasanun li xayrihi bu fekkee ne itibaar nañ yeneen mutaabaat yi yeneen shawahid yi nga xamante ne comme mbokk mi ko parce que xamul ko yaakaar naa jarul ñu ciy jaar waaye bis bu ñu ci waxtaan yóbbee di ngeen ko dégg ñëw na ci téere sunna yu bëree bëree bëree bëri ba musnad ahmad ibn hanbal waaye daal bu fekkee xadis bi kott kott la amul ci beneen téere lil amaana al ilmiya buñ génnee ishaq ibn abi israil bàyyi bakr ibn haysam balaa zulum ne haddasana bakr ibn haysam qaala haddasana abdurazaq boobaa xadis bi dafay nekk daifun li zaatihi parce que bakr ibn haysam majhulul hawiya waaye nag ci biir balaa zuri ci boppam xadis bi am na yeneen mutaabaat ci bakr ibn haysam muta bakr ibn haysam mutaabaa ko sàkkantuma nag yeneen yoon yi ñëw mutaabaa xaarija yeeg mutaabaa daaxila yi yëpp am na moo tax daal ay kii yu sew la waaye daal lil amaana comme ni ma ko waxee buñ génnee Isaaq ibn Abi Israil ba bàyyi Bakr ibn Haysam te xadis bi ñuy intibaag la amul beneen yoon tasliman jadaliyan dafay nekk daifun li zaatihi waaye alhamdulilah bi nga xamee ne am na ay mutaabaa ci tabaxa bu nekk comme ni ma ko waxee euh, waaw xam naa euh, pour ñu wax ci Abdurazaq ibn Hammam Sanaani nag dafay am dafay laaj muqaddima muqaddima boo xam ne dafay aju ci ñi xam lan mooy ilmul xadis ak ilmul jarx wa taadil ak alfaazul jarx wa taadil xam nga jamono bi ñuy tadwin xadis ñëpp xam nañ ne ki njëkk a def tadwin ilmu riwaaya mooy Muhammad ibnu Muslim ibnu ki njëkk a def tadwin ilmu diraaya mooy Rama Hurmuzi léegi jamono ba nga xamante ne ñoom ci liñ doon dund dafay am impact Muhammad ibnu Muslim ibnu Shihabin az-Zuhri mi ci palais banu Umayya yi la nekkoon bokk na ci ñi daan bindal Hisham ibnu Abdul Malik wala moom moo ko daan bindal te ñëpp xam nañ banu Umayya te niñ bañee woon imaam Ali karamallahu wajhahu ak alul bayti looloo waral nga gis Muhammad ibnu Shihabin az-Zuhri mi moom moo riwaayé ñi ne papaay Seydina Ali mu ngi safara xam nga loolu laa xarwa sa noon bu riwaayaat ci yow lu bon léegi ilmul jarx wa taadil aussi di avancé loolu tax na boroom xam-xamu xadis yi ñi nga xamante ne ñooy tuddee seen bopp ahlu sunna ñoom dañoo am dañoo am nijaay comme niñ koy waxee maanaam dañoo am benn immu euh, immunité boo xamante ne keneen ku dul ñoom amoo ko immunité boobu mooy lan mooy itlaaq nañ leen ci umma bi ñu dugg fu leen neex taddiif ku leen neex ngay gis boroom xam-xamu xadis yi di dugg ci ulamaul luga di leen tadif di dugg ci ulamaul taarix di leen tadif di dugg ci ulamaul tafsir di leen tadif ainsi de suite parce que lan xadis borom xam-xam yi dañoo taxawee woon en tant que buur te buur bi moom il se donne l'autorité dugg fu ko neex lijjanti lu ko neex lu ñetti lu ko neex lu nekk yoon a mag ca euh, bokk na ci raffinerie yooyu nga xamante ne tegoon nañ ko pour segg xadis yi lépp lu leen arrangé ku mel ni imaam Ali lim dund ak yónnentu pendant vingt trois ans ginnaaw bi ñu yónnee yónnentu te mu dund ak yónnentu avant ñu koy yónni imaam Ali té juróomi téeméeru xadis kott ak lu tegal lañ riwaaye ci moom ku mel ni Abu Hurayra comme moom dafa jege woon nguur gi ñu riwaaye ci moom juróomi junnee xadis te pourtant ñaari at la dund ak yónnentu ñaareel bi aussi ñiy tatabbu képp koo xamante ne da ngaa bëgg aalul bayti di wane mbëggeel googu noonu ñu taddiif la loolu ibnu xajar al asqalaani ci boppam wax na ko ci muqaddima misanul itidal bu ma juumul bu fekkee li ma jàngoon ma ko aussi wax na ko ci tahdibu tahdib kene moom li ko jaaxal mooy boroom xam-xamu jarxu yi ni ñuy tadiifee chia mutlaqan di tawsiq nawasib xaaliban nawasib moom mooy ñi nga xamante ne dañoo bañoon aalul bayti li jaaxle mooy boo xoolee téere yi wax ci wàllu firaq yi comme lu mel ni al al milal wa nihal bu shahr bu shahrastani wala al milal wa nihal al fisal fil milal bu ibnu hazmin ainsi de suite genre téere yi wax ci e, e, firaq yi al farqu bayna al firaq bu abdul qahir abdul qahir al baghdadi di nga gis ñi indi la chia indi la suufiya indi la mu'tazila indi la xawaarij indi la jahmiya indi la karamiya waaye doo gis ñi indi la nawaasib parce que naasiba yi nawaasi bi ñoom ñoo nekkoon buur yi te kenn du dugg ci seen parti di leen lu ñetti mu ngi mel ni tey jii Macky Sall mën naa tëj ku bokk PDS tëj ku bokk AFP tëj ku bokk fu nekk waaye ku nekk ATR moom loo def moom neel gongo boo transhumé ñëw ci moom aussi loo def yow neel gongo kon jamono yu loolu dafa amoon léegi nag loolu bokk na ci alphase yi nga xamante ne créé nañ ko mooy chia chia boobu noonu boo delloo ci alxumaan baat bu rafet la Euh, ndax alquran indi na ko ci maanaa ijaabi ñaari yoon euh, wa inna min chiatihi la ibrahim hada min chiatihi wa hada min aduwihi léegi ñoom ñi créé tashay chia boobu noonu chiati alil bayt di leen tataboo di leen rey dem na ci ba képp ku tudd Seydina Ali boo amee doom tuddee ko Seydina Ali sax dañ koy rey comme ni nga xamante ne noonu la Firawna daan def balaa yonentu yàlla Moussa di juddu ku am doom bu góor mu rendi la ibnu Hajar al Asqalaani indi na ci tahzibu tahzib tarjama benn waay bu tudd ulay ibnu rabaax ulay ibnu rabaax mi lu tax mu ne baayam tuddee ko ulay parce que sayidna ali la ko bëggoon a tuddee ibnu xajar mu ne ibnul maqari nee na loolu jamono banu umayyat la woon parce que dañ daan tataboo képp ku tudd ali ñi tër la rendi looloo waral bi mu bi nga xamee ne rabaax moom dafa bëgg sayidna ali ci xolam waaye bëggul ñi rendi doomam moo tax mu ne sama doom ji tudd ali waaye ulay la tudd maa ngi jéggalu bu fekkee euh, kii bi muqaddima bi gudd na di ngeen comprendre li ma bëgg a wax léegi bu fekkee ku bëgg Seydina Ali sax ku tudd Seydina Ali ñi rendi la sàkkantumaa ku ko bëgg xujur ibnu adi alkindi saxaabi la gis ngeen diñ ko def ci ne rek Muawiya moom moo ko raylu parce que daf ko wax ne na saaga Seydina Ali mu bañ am na ku ñu tuddee mu arqabu mu arqabu lu tax ñu tuddee ko mu arqab dañ ko maanaam urqiba laaj nañ yaakaar naa ali ibnul madini la bu ma juumul fii maza urqiba qaala urqiba fi tashayyu maanaam tashayyu moo tax ñi ñi def ko lañ ko def léegi ibnu sikkit aussi an naxwi nga xam ne moom mutawakkilu laaj na ko nekko sama ñaari doom ak xasan ak xuseynu ku gën mu ne ko waxuma la xasan ak xuseynu waaye xambaru seen ba seen jaam sax moom moo gën sa ñaari doom yi mutawakkilu ne indi leen ma làmmiñam gi kon gis nga ala mamari taarix ci jamono tadwinu sunna ñii lañ doon tatabwaye ñi bëgg aalul bayti ñii ñi leen di rey ñii ñi leen di dàq ñii ñi leen di ainsi de suite ñii ñi leen di tëj léegi nag biñ ñëwee ba ci deuxième siècle ak troisième siècle ñoom Abdourazaq ibnu Hammam commencé di feeñ ci seen jamono parce que ci troisième siècle ci deuxième jëm troisième siècle la dund léegi jamono siècle yooyu noonu nga xam ne jarxu wa taadil commencé na di feeñ képp koo xamante ne yow dangay ngay biral mbëggeel gi nga bëgg Seydina Ali ñu ne la yow chia yi nga duñ jël sa riwaaya comme par exemple tey jii ñu ne Sénégal képp ku wane ne da ngaa bëgg Serigne Touba wala da bëgg Seydi Hadji di ko fësal rek yow duñ la duñ la nommé ministre parce que gouvernement bi laïque la yu mel noonu lañ daan def wala képp ku nekk PDS duñ la nommé ministre parce que gouvernement bi APR la alors yooyu noonu nag tax na. am na ñoo xamante ne ni amuñ woon bàjjan wala amuñ woon nijaay ci ruwaat yi maanaam ñu woon fenn fi ñooñu automatiquement dañ leen di bombardé ak baat ak baat boobu chia rek ñu sànni seen riwaaya mais am na ci ñoo xam ne heureusement seen xam-xam dafa toll foo xam ne buñ ko génnewee ci l'islam l'islam yëngatu maanaam mu am manqué manqué par force léegi ñooñu duñ mën a sànni seen riwaaya yi complètement waaye dañ naan la chia lañ mais bi charte buñ riwaayaa ci alul bayti kottu lañ dut jël wala bu ñu riwaayaa ci masaali bu muawiya lañ dut jël parce que xam nañ ne buñ sànnee seen riwaaye comme niñ sànnee riwaaye ñëpp ci chia yi ñu bëri l'islam dina am manqué manqué par force léegi Abdourazaq ibnu Hammam ci genre googu la bokkoon nga xam ne tey jii xidma bi mu defal l'islam amul kenn ku ci mën a génnee l'islam nekk ci jàmm bu ñu génnee liggéey Abdourazaq ci l'islam tey tey ci guddi ponk yu bari daanu léegi nag ñu ne chiites yi la wala ñu ne rumiya bi tashayyu wala ñu ne uttuhima bi tashayyu wala ñu ne pour xaw a oyofal mbir mi waaye tashayyu boobu noonu alxaafis ibnu hajar al asqalani alhamdulilahi rabbil alamin ci fathul baari moom moo ñu defal taarif bi moo nañu wa tashayyu mahabbatu aliyin wa taqdimuhu ala sahabati buñ ne yow chii ne kon nañ xamee ne da ngaa bëgg sayidna ali ba pare da ngaa nangu ne Seydina Ali am na kenn kum gën ci saxaaba yi léegi boo delloo ci usulul fiq mafhumul muxaalafa dafay wax ne watta sannunu kon ci loolu lañ ci mën a déggee watta sannunu ma euh, buxdu Ali wa taaxiruhu ala saxaabati maanaam tasannun kon mooy bañ Seydina Ali parce que ida kaana tachayu mahabatu Ali fa tasannun buxdu Ali léegi nag boo delloo ci téere jarh wa ñu bëri ñooy gis ñu naan la kaana saaxibu sunna da leen fekk ñu nekkoon ay nawaasib da nga leen fekk ñu nekkoon ñu doon saaga Seydina Ali ku mel ni ku mel ni euh, Imran ibnu Hittaana <clears throat> Imran ibnu Hittaana mi moom moo daan wax Seydina Ali ne euh, moom moo daan wax abdourahman ibnu muljamin almouradi mi ray saydna ali yaa darbatan min taqiyin ma araada biha illa li yabluga min zil arshi ridwana inni la azkuruhu xiinan fa axsibuhu inda albari aw fa albariyati inda allahi misana mu ne ci ray saydna ali moom mooy ëpp yool fa yàlla am na sax fu mu tuddee saydna ali ashqal bariya waaye terewut riwaaye nañ ay xadisam ci kutubul jarx wa taadil da ngay jarx wa taadil da ngay dégg ñu naan la siqatun siqatun siqa te nii la daan def Seydina Ali ki rey Seydina Xuseyn muy Omar ibnu Saad ibnu Abi Waqaas boo demee ci téere bi tudd tahzibu tahzib bu ibnu Hajar al Asqalaani da ngay dégg mu ne la huwa alladi qatala al Xuseyna siqa moom moo rey Xuseynu la maanaam waxut ne moom moo saaga Xuseynu de moom moo rey Xuseynu léegi bu fekkee ku rey Xuseynu nga waaye Muawiya moom boo ko saagaa demal safara doo duñ jël sa xadis doo nekk siqa chii'i nga rafidi nga kon fii Muawiya ak Xuseenu kan moo leen kan kan moo leen gënal kan mooy li ma bëgg a génnee que ne mbiru politique la duut mbiru xam-xam mazhabiya la duut jarwa taadil ilmi waaye jarwa taadil mazhabi la boo delloo ci ku mel ni Xurayz euh, ibnu Ousmane al-Himsi xadisam yi ñu ngi ci Buxaari ñu ngi ci muslim ñu ngi ci téere sunna yi yaag astafurlah muslim jëlul xadisam parce que daf ne ku mel nii man du jël xadisam waaye mu ngi ci Buxaari mu ngi ci yeneen téere yi Xurays ibnu Usmaan moom li doonul liggéeyam mooy bu xëyee suba ba julli fajar ba pare daf daan jël kurus toog allahumma la an tudd Seydina Ali allahumma la an tudd Seydina Ali ba muy juróom-ñaar fukki yoon ci suba bu jullee tàkkusaan ngoon mu répété waat ko bukratan wa comme ni tiijaan yi di wér daan laazimi suba ak laazimu tàkkusaan moom wér de laazimam moo doonoon laanu Seydina Ali waaye boo delloo ci téere jarh wa taadil yi da ngay gis ñu ne la siqatun siqatun siqa maa ru'ya fi Sham siqatun misla gisuñ ci Sham siqa bu mel ni moom te lii moo doonoon liggéeyam léegi bu fekkee ku saaga Muawiya wala nga riwaaye xadis bu yonentu wax ne Muawiya yatloo min hada al fajri rajulun yamutu ala gayri millati ñu ne la yow chii nga duñ jël sa xadis léegi kuy rëbb Seydina Ali moom lu tax ñuy jël ay xadisam donc madhabi la wa laysa ilmi euh, am si la yiñ ci mën a joxe bëri na lool waaye li tax ma ne mu euh, Muawiya moom mooy seen seen yonentu en quelque sorte parce que dangay ngay topp téere jarh wa taadil yi léeg-léeg da ngay gis ay chia yoo xamante ne ni ay rawafid lañ naam parce que man rafidi pour man mooy kuy saaga ku mel ni sayyidatuna Aïcha wala sayyidna Babacar wala sayyidna Omar wala sayyidna Talha wala sayyidna Zubair parce que ñooñu du ñu ñu war a saaga ndax yonentu saagawu leen waaye kuy saaga Muawiya man du ma la jàppee rafidi sunni laa lay jàppe parce que Muawiya yonentu moo wax loolu ci moom laa xarwa boo waxee li yonentu wax ci nit ki loolu sunna la parce que balligu anni walaw aayatan léegi boo delloo ci téere jarh wa taadil yi da ngay gis ay raaw yi par exemple ku mel ni Abbad ibnu Yaqub imaamu zahabi indi na tarjama ci misaan al itidal abbad ibnu yaqub rawadiri ni buxaari riwaaye na xadisam waaye moom lan moo doonoon liggéeyam ak lan la daan wax mooy allahu aadal allahu aadal min an yud min an yudxila talha wa zubair aljannata yàlla maanduteem weesu na muy dugal sayidna talha ak sayidna zubair aljanna wa kaana yashtumu usmaana daf daan saaga sayidna usmaan moom abbad ibnu yaquba rawadiri waaye pourtant riwaaye nañ xadisam mais buñ riwaaye woon benn yoon ne mës naa saaga Muawiya duñ jël xadisam kon da ngay gis ne Muawiyatu moom mooy seen taabu moom mooy seen taabut bu mag bi moom mooy seen yàlla ji parce que moom moo leen moom moo sos nguur dynastie bi nga xamante ne ci suufu dynastie boobu ci la ilmul xadis juddoo ci la ilmul jarx wa taadil juddoo moo tax ni ñuy taqdisee Muawiya duñ koy taqdisee talxatu zubeyru ba nga xam ne ku saaga talxatu ak zu talxatu ak zubeyru sax mën nañ la baal waaye boo saagaa Muawiya duñ la baal. mu ngi mel ni tey jii ci Sénégal ku saaga Abdoulaye Wade ancien président la duñ la wax dara bu sa ku saaga ku saaga ab benn politicien Masamba duñ la wax dara waaye boo saagaa Macky Sall ñu ne la offense léegi nag ñoom offense au chef de l'état boobu noonu dañ ko tuddee beneen tur mooy tashayyu affaire politique la. donc pour ma xaw a tënk fii rek parce que muqaddimaat yi ñu ci duggee du jeex léegi lii nii taxoon na ci deuxième siècle jàpp troisième bépp xadis bu yonentu waxoon ci Muawiya bu bon ñetti maraaxil la ñuy jaar soit ñi nëbb ko duñ ko wax parce que ragal nañ jaase yi jaar ci seen doq yi soit ñi changé tour bi dugal fa xakam ibnu abil aas wala ñu dugal fa keneen soit ñi taflin maanaam buñ demee ba nga xamante ne mënuñoo changé tur bi dañuy taflin ñu ne la fulaan fulaan moo tax nga boo duggee ci seen hadis yi da gis ay hadis yu bëri ñu naan la fulaan fulaan fulaan mais xam ngeen ne yonent bi du toog naan fulaan fulaan quand même dina tudd tur parce que moom amul kenn ku muy ragal laa yaxaafu fillahi lawmata laa'im mais borom riwaay yi dañ naan la fulaan léegi su ñetti maraaxil yooyu la soit ñi ñi ñi ñi ñi nëbbu xadis bi suwaat ñi changé tur bi soit ñi taflin ba nga xamante ne nii genre mel nii léegi am na beneen marxala bu juddu ginnaaw gi ci commencement troisième siècle jàpp quatrième ba jamono imam ahmad euh, ci troisième waaw troisième siècle jamono imam ahmad jàpp quatrième ñoom seen liggéey mooy bu fekkee mënuñoo nëbbu tur bi mënuñoo taflin mënuñoo nëbbu xadis bi ñi xool raawi yi ñi jarxu leen Abdourazaq ibn Hammam mi lu mel noonu lañ ko def alors bu fekkee mu mënuñoo jarxu raawi bi ñu fexe ba kenn du dégg turam yaakaar naa am na benn waay bu nekk ci téere zahab yi bu tudd euh, téeréen bi tudd tazkiratul xuffaz waa ji mu ngi tudd alxaafis ibnu uqdat ñoom boroom xam-xamu seen bopp ñoo itiraaf wax ne daggee ca jamono abdullahi ibnu mas'ud ba jamono ibnu uqda gisuñ ku mokkal xadis ku mel ni moom mokkal na lu ëpp juróomi téeméeri junnee xadis mais xadis yooyu yëpp nëbbu nañ ko turu xaafis ibnu uqdatal kuufi ci boppam nëbbu nañ ko kenn déggut ko tey jii xëy na bu ma bu dul lu ma ko wax ni ñu bëri ci groupe bi mosuñoo dégg turam léegi xam-xam boobu ak xadis yooyu mu mokkaloon anañu ko tout simplement parce que moom dafa bëggoon aalul bayti ñu ne ko yi la moo tax jëriñuwuñ ci juróomi téeméer junne xadisam yooyu tey jii xale bu ndaw boo fëgg ne ko kan mooy ibnu taymiya xam na ko xale bu ndaw boo fëgg ne ko kan mooy albani xam na ko xale bu ndaw boo fëgg ne ko kan mooy ibnu hajar xam na ko xale bu ndaw boo fëgg ne ko kan mooy imam ahmad mu defal la tarjama mais ñu mel ni ñoom ibnu uqdatal kuufi déggoon seen tarjama nëbbu nañ seen tur yi loolu tamit bokk na ci maraaxil yi yi nga xamante ne pour défendre Muawiya la alors euh, donc da ngay gis ne ñoom ñoo sos seen mbir bopp sos seen raffinerie di segg maanaam sos seen raffinerie di segg seen gerte bopp pour créer seen diwlinu bopp ku leen arrange ñu sang la ba nga set ku leen arrangé wu ñu santeel la ba nga tilim loolu ay problème la yoo xamante ne bu nit ki amul mu maarase ci taarix xanaa di copier ci Google wala ci Facebook wala ci YouTube wala ci site web bi tudd mu yu shubahat c'est pas forcé que mu xam loolu foog mu am ay sëriñ yu mel ni Chérif Ibrahim Saleh nga xam ne dañ lay defal tamise bi ne la lii lii la lii lii la lii lii la foo gis li lii lay taxawee bon euh, yàlla nag mooy maye tey like euh, kulli zi fadlin fadla taarixu islam problème boobu mu am Abdurazaq ibnu Hammam Sanaani kenn musukaa tuumaal fen ku kenn nit mooy ku ñuy wax Abbas imaamu Zahabi indi na ko ci tarjamaam ci misaanul ci taarixul islam ak ci siiru alamin nubala e, ñu ko tarjamaal ñu bëri indi nañ ko waaye imaamu zahabi moom ci boppam bi mu indee waxi abbas googu ba pare mooy fi mu wax ne e, laqad tawashamtu ila abdirazaq wa innahu la kazabu ruwaati walwaqidi asdaqu minhu yaakaar naa loolu da ba ma juumul imaamu zahabi moom ci boppam daf cee teg ne qultu maa bara abbasun bi yaminihi haza maanaam abbas mi li wax nii duwul dëgg parce que dafa xool ku mel ni cheikhul islam koo xamante ne ni euh, mboolem borom téeri sixaafu yi ixtijaajee nañ ko mu ñëw di ko jam ba pare di ko comparer ak waaqil yi moo xamante ne dañoo wax yow yaay ne euh, ijtamaal xuffaasu ala tarki yi li léegi man foofu am naa fa taxaw waaye nañ jàll Abdou Abdou Razaq moom mooy suñu moom mooy suñu kii mooy suñu point bu ñu xamee loolu ñu xool wax yi nga xamante ne boroom xam-xam yi wax nañ ko ci moom ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo jëlee ci moom. Euh, boo delloo ci taarixul islam mayem foofu rek pour ñu bañ wax ne damay jaay bëri téere euh, yaakaar naa taarixul islam moom duwut bëri téere boo delloo ci taarixul islam ci tarjama Abdourazaq ibnu Hammam yaakaar naa moom mooy tarjama deux cent trente deux deux cent trente deux ci volume cinq ci page trois cent soixante quatorze bu ma juumul. Euh, bu fekkee suñu tab yi ñoo bokk boo demee ci marji bi ma la jox di nga gis imaamu zahabi tarjamaal abdurazaq ibnu hammam ci biir tarjama bi mu wax ne abdullahi ibnu ahmad ibnu hambal laaj na baayam ahmad ibnu hambal nee ko nit ñi de dañoo wax ne abdurazaq daf daan xuus ci ab tashayyo ahmad ibnu hambal nee ko waa amma ana falam asma minhu zalik wala falam asma minhu shay'an ci yu mel noonu aw maa fi maanaam mu ne ko man de dégguma dara lu mel noonu lu jugee ci moom maanaam Ahmad ibnu Hanbal mu ngi setal Abdurazaq ci tuuma gi ñu ko tuumaal shii yi te waxoon naa leen ci ginnaaw ko ne alxaafis ibnu Hajar wax nañu ne tashayyu mooy mahabbatu Ali wa taqdimuhu donc ñoom nag dañoo ñaawal turu tashayyu bi pour bëgg ñu sànni hadis bi ahmad ibnu hambal doomam abdullahi laaj na ko ne dañoo wax ne abdourazaq daf daan xuus ci tashayyo ahmad ne ko man de musuma dégg lu mel noonu ci moom euh, imaamu zahabi continue di wax ne abdourazaq cheikhul islam la wala riwayatul islam la wa huwa saduqun fi nafsihi wa xadiisuhu muxtajjun bihi fi sihaahi maanaam xadisu Abdurazaq dañ koy ixtijaaje ci sixaax yi maanaam bu joxee sixaaxu itlaaq ko dafay aju ci mboolem téere sunna yi Abdurazaq dañ koy ixtijaaje muxtajjun bihi yu mel noonu nga xam ne Zahabi wax na ko indi tamit waxu Ahmad ibnu xambal ba léegi boo xamante ne Abdullah ibnu Ahmad moo ko laaj ne ko ndax mës ngaa gis ku gën a rafet Abdul Abdurazaq xadis Ahmad ibnu Hanbal mu ne ko laa maanaam pour Ahmad ibnu xambal amul ku gën a rafet Abdourazaq xadis kooku maanaam ko gën a baax xadis léegi nag yu mel nii nga xamante ne dafay génn baynal xiin wal xiin léeg-léeg nga gis ay tanaaxut ci téere yi nag loolu nag tamyiz taarix moo koy may nit nga gis ñu ne la Ahmad ibnu Hanbal tagg na Abdourazaq fii ñu indiwaa beneen riwaay ne la jàjj na ko walla jam na ko ala foog benn moo ciy nekk dëgg benn nekk ci fen nuñ koy xamee dañuy dellu ci riwaayaat yi ak ca la nga xamante ne moom mooy tabi'a nit ki ci aslu keroog indil naa leen fii benn wax que ne Ahmad ibnu xambal bu toogaan ci Abdurazaq muy nettali ay xadis ci masaali bu yenn saxaaba yi ñu mel ni ñoom Muawiya Ahmad ibnu Hanbal daf naan fatt ay noppam ma daal di ci teg commentaire ne bu fekkoon ne xadis yooyu ay fen la yu Abdurazaq di fen konoon Ahmad ibnu xambal du ko bàyyi mu jàll konoon dafay jug taxaw jàkkaarloog moom ne ko yow fenkat nga parce que da tuumaal saxaaba yi lii yonentu waxut ko mais pourquoi mu fatt ay noppam toog noppi mooy ne xam na ne yonentu wax na ko parce que Abdourazaq mii du fen donc la Abdourazaq wax mu jigee ci yonentu moom moo ko arrangé wu moo tax ba bëggul kaa dégg laa tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fiihi indi woon naa ko fii kon loolu dafay gën a saxal que ne Abdourazaq duur kuy fenal yonentu duur kuy sos lépp lu mu wax lu jugee ci yonentu la parce que ba ci xatta masaali bi Ahmad ibn Hanbal tuuti na ci raddu ko ci kanamu Abdourazaq mënul lul fatt ay noppam mooy comme li ma wahaabi yi di def bu ma indee hadis munuñ koo tontu ñu ne léegi bu leen déglooti Baye Niass bu leen débattre ak moom loolu la Ahmad ibn Hanbal daan def fatt ay noppam waaye terewul mu continuer di jàng ci Abdou Razak parce que tuumaalu ko dara moom xam na ne lam déggee ci yonentu lay wax waaye la bu yonentu wax noonu moo arrangé wut Ahmad loolu nag am na ci raawi yu bëri ñoo xamante ne ni dañuy wax la yonentu wax point yem fa duñ yokk duñ wàññi am ñoo xam ne nag moom dañuy changé euh, ba tey taarixul islam ba léegi di nga gis Yaxya ibnu Maïn wax ne Abdurazaq ibnu Hammam as-San'ani naka noonu boo delloo ci Tahzibul Kamal ba tey waaye bon xaaral ma yéen ci taarixu islam pour bu ñu wax boo delloo ci taarixu islam di nga gis Yaxya ibnu Maïn wax ne Abdurazaq ibnu Hammam as-San'ani huwa asbatu fi Ma'mar lan la boroom xam-xamu jarxo yi di tuddee asbatu fi Ma'mar buñ ne diw asbatu naasi fii fulaan maanaam lu mu déggee ci kooku lu wér la lu mu déggee ci kooku du loo xam ne dafay am ihtimaalu wax mu di ci dugg par exemple ma ne Malick Mbaye boole de xam naa ko xam ngoo xam ne ni ma ko xam ne ci groupe bi yaakaar naa kenn xameewu ko fi lépp lu mu wax takk naa ko lépp lu mu wax mën naa kaa nettali xarfan bi xarfin donc keneen ku dul man xëy na bu Malick Mbaye waxee Euh, Casamance mën na juum ne Casa ne Casase wala mu changé lafz bi waaye asbatu naasi fii Maamar loolu martaba bu am doole la ci ixtijaaj ci majaal bi ma nekk ndax lan xadis bii ñu indi muy yetlu alaykum min haza al fajji rajulun yamutu ala gayri millati Abdurazaq ci Maamar la ko jëlee moom tamit kon wa Abdurazaq asbatu naasi fii Maamar dafay gën a saxal ne xadis bi wax mu mënu cee dugg. parce que ca këm gën a mën a mokkale ay waxam ci la ko jëlee ba pare di nga gis ci biir tarjama boobu fuñ la indilee ne la Abdurazaq moom ci boppam wax na ne saara maamaru haalii lahjatan fii famille maanaam maamar dafa dem ba mel ni euh, fatiha ci sama làmmiñ bi ni ma mokkalee fatiha noonu laa mokkalee ay waxam ni nga xamee ne bu may jàng fatiha du ma ci gàtt naka noonu bu may nettali ay waxu maamar du ma ci gàtt parce que tey jii nit ki mën na mokkal beneen saar bu koy jàng di ci gag waaye fatiha moom bu ko mokkalee bu koy jàng mën na cee bañ a gag donc abdourazaq moom noonu la menoon ci maamar te pourtant hadisu yatlu alaykum bi bu balaazuri bi ci maamar la jógee tey gën a saxal ne wax yi nawaasi bi di wax naan ay ittiraab ay nangam danañ ci ñëw danañ ci danañ xeeb seen bopp euh, bon pour conclure bàyyi la nga continuer lafzu imam ahmad bi yaakaar naa gis naa ko mu ngi nii mooy dañoo laaj imam ahmad ne ko ndax abdourazaq kaana yufritu fi tashayyu fa qaala amma ana falam asma minhu fi hada shay'an man de musuma dégg dara ci moom lu jógee ci loolu lu jege loolu kon ahmad ibnu hanbal gëmut ne abdourazaq chia yi la tuumaalu ko tashayyo contrairement ak nawaasib yu mujj yi ñëw ndax li abdourazaq di wax arrangé wu leen ñu ne ko chia yi la te xam nga problème bi lan la mooy ñoom ñi lay wax tashayyo tashayyo mais tashayyo dafay am ay ay am ay am si la par exemple man ñun bi ñu waxee ne Imran ibnu Hittaana naasibi la indi nañ ci am si mooy ne saaga na Seydina Omar sa kii kon Seydina Ali riwaaya baa ngi nii fii lañ ko jëlee bi ñu waxee ne diw naasibi la indi nañ ci am si mooy ne rey na Seydina Xuseynu bi ñu waxee ne diw naasibi la indi nañ ci si la mooy ne bu xutba waan ci kaw ndar daf daan saaga Seydina Ali mais Abdourazaq mi tuuma bi ñu ko tuumaal tase yo tuhmatun bila hujja amul benn misaal bu ñu la mën a indil bal bal boo delloo ci tarjamaam ci tahzibul kamal yaakaar naa bu ma juumul ak ci siiru alamin nubala di nga gis ne moom daf daan gënale Seydina Abubakar ak Seydina Omar ci kaw Seydina Ali maanaam daf leen daan jiital ci kaw Seydina bu ngeen bëggee ma dugal photo bi te da gis ne moom buñ tudd bu tuddaan Seydina Abubakar Seydina Omar Seydina Ousmane Seydina Ali daf naa ne rahimahumullah ñoom ñëpp ndax chi dina wax li lii mu ci tarjama bi ko Zahabi tarjama bu ñu dem fenn waa ji maa ngi koy dégg siyaru alamin nubala sax ko mu naan sayru ala yeti haal ci tarjama yi ko Zahabi tarjamaal di nga gis ne indi na ne Abdourazaq daf daan gënale Seydina Abubakar Seydina Omar daf leen daan jiital ci kaw Seydina Ali te musul leen na ngaañ te buñ ko laajaanee ko kan lay gënale mu ne euh, daf daan tudd Abubakar tudd tudd Ali léegi ana tashayyu bi benn misaal ci tashayyu bi lañ soxla wax ji duut ay wax yu ñuy wax ni rek di ko sànni ci ngelaw li muy dem ñaareel bi li lay xamal ne nawaasib yi ñoom ñoo koy jam waaye muhaqqiquuna yi ko xam dëgg dëgg dëgg ñoom tuuti nañ ci jam ko mooy par exemple ku mel ni Ibnu Adi da ngay boo demee ci taarixul islam ci volume 5 ci page 374 moo sànq ci tarjama Abdurazaq di nga gis mu wax ne qad rahala ila Abdurazaq siqaatul muslimin wa a'immatuhum wa katabu anhu wa lam yaraw bi xadiisihi ba'san maanaam Abdourazaq siqaatul muslimina yi ñi gën a wóolu ci jullit ñi tukki nañ jëm ci moom te bind nañ jëlee ci moom te gisuñ benn ayib ci ay xadiisam illa annahum nasabuhu ila tashayu lu dul ne rek ñoom askan nañ ko tashayu waaye tashayu bi ana hujja bi indi leen benn xujja ci tashayyu bi tashayyu bi mooy bëgg Seydina Ali comme ni ko gars yi waxee bu dee bëgg Seydina Ali ayib la dañuy dellu ci li imaamu Shafii waxoon rek in kaana rafdan xubbu ali muhammadin falay shari saqalaani anni rafidi ak beneen waxam bi muy wax naan ida fi majlisin azkuru aliyan wa fatimata wa banihi uh, wala wa banihi wa fatimata zakiya yuqaalu qad tajawaza haza wa saara ila hadithi rafidiya baritu ila almuhaymini min unasin yarawna rafda xubba alfatimiya lii mooy seen péché ay politique la rek yu ñu teg ay naxante la rek di lëndamal xel wi di lëndamal juhaal yi euh, nga dégg mu ne la ibnu adi ba léegi ci taarixul islam zahabi toxal ko mu ne tacha yow moom mooy li gën a rëy luñ ko jamee amul beneen jam buñ ko mën a jam bu dul bii billaahi bu ñu amoon beneen jam danañ ko jam waaye xamuñ luñ ko mën a jamee comme bëgg na Seydina Ali comme mu ngi màggal Seydina Ali ñu ne wax ah nañu wax ne chier yi la pour ñu amul tamise ginnaaw bi bu ñëwee chia chia ya ixwanana التمييز عندنا بين العالم والعالم متيسر وكذلك التمييز بين الرافدي والشيعي متيسر alors euh, boo delloo ci taarixul islam li may bii moom am na solo bii dafa am solo bindee leen ku big bu rouge boo delloo ci taarixul islam bu zahabi ci tarjama Abdourazaq ibnu Hammam as-San'ani ci volume cinq ci page trois cent soixante quatorze da nga gis ku ñuy wax Abu Salih Muhammad ibnu Ismail mu ne balagana wa nahnu inda Abdourazaq bi Sanaa ab xibaar dikkal nañu boobu ñun ña ngi fa Abdourazaq di jàng anna ibna Ma'in wa Ahmad ibni Hanbal wa gayruhuma taraku hadith Abdourazaq ne Yaxya ibnu Ma'in ak Ahmad ibnu Hanbal ak ñeneen ñu dul ñoom bàyyi nañ xadiisu Abdurazaq sànni nañ ko wa karihuhu sànni jéppi nañ ay xadiisam bañ nañ ay xadiisam moo lay xamal ne fen wi fen wu yàgg la bu gaa yi doon def mu ngi mel ni par exemple léegi rek ci jamono ji toog rek ñu woo la ne la gis nañ weer bi imaam imaam diw ci dëkk sàngam nee na gis na weer bi boo woowee imaam bi mu ne la xay man de xale yi laa dégg ñu koy wax alors léegi Abu mu ne xibaar bu mel noonu tamit yegsil nañu maanaam xibaaru kaytu kaytu ne Yaxya ibnu Maïn ak Ahmad ibnu Hanbal ak ñeneen ñu du ñoom bàyyi nañ xadisu Abdurazaq jéppi nañ xadisu Abdurazaq comme ni suñu àllaamatuna bi ñëw bëgg ñëw woon Abu Salih daal di wax ne fa daxalanaa min zalika xammun shadidun ñu daal di am tristesse ci loolu ndax lan ñun dundalal nañ dépensé nañ suñu alal tukki nañ sonn nañ si yoon bi ba dikk Sanaa pour jël ay xadis parce que kiñ dikk ci moom ni jàpp nañ ne siqa waaye ñu toog dégg ñu ne ndekete borom xam-xam yi jarh wa taadil yi ne nañ ñoom bàyyi nañ xadisam léegi kon ñun bu buñ jëlee xadisam aussi dafay taxaw maqaama zéro affaire boobu nag daal di ko triste mu ne fa lamma kaana waxtul xajji waa faytu bi makka yaxya ibnu main bi jamonoy aj jotee ma dem makka dajee fa yaxya ibnu main fa saaltuhu ma daal di ko laaj lii ci taarixu islam daf ko indi mulaxasan waaye boo demee ci seeru alaaminu bala indi na ay tafsiraat ma daal di ko laaj ne ko ya aba zakariya maa nazala ñun de dafa am benn xibaar bu ñu yegg si mu ne ko mazaat mu ne ko xibaar bi mooy dañoo dégg ñu ne yéen da ngeen na bañ xadiisu abdourazaq léegi maanaam da ngeen na dëppoo ci sànni xadiisu abdourazaq ci boycotté abdourazaq comme ni wahaabi yi defoon Baye Niass Yaxya ibnu Ma'in daal di ko wax ne ko ya aba salih law irtadda abdurazaqi an il islam ma tarakna xadisahu ma tarakna xadisahu bu abdurazaq murtadoon ci l'islam waxuma la mu nekk tashayyo wala mu nekk mu'tazili wala mu nekk shafii wala mu nekk maliki mu murtad génn ci l'islam yaxya ibnu mayin nee na moom du bàyyi xadisu abdurazaq kon yaxya ibnu mayin gëm na ne bu abdurazaq waxee ne muawiya mu ngi safara muawiya mu ngi safara waxuma laay chia chia chia ish kallam taarix bi laa hujja Yahya ibnu Ma'in mu ne dellu ci taarixul islam boo ko amul nga wax ma ko ma yónnee la photo bi wala nga dellu ci siiru alaami nubala mu ne la wér tadda Abdurazaq Abdurazaq bu murtadoon waxuma la mu nekk chia kese chia dafa tuuti bu murtadoon sax duñ bàyyi xadisam te Yahya ibnu Ma'in mii ci miisaanu jarh wa taadil moo jiitu Ahmad ibnu Hanbal fuuf moo gën a dis Ahmad ibn Hanbal ci misaanu jarh wa taadil kon Yahya ibn Ma'in lii la wax léegi liñ leen di ñaan mooy bu leen ñëw naan ñu Zahabi ci siiru alaami nubala bi mu koy tudd dafa wax as-siqatu shii as-siqatu shii ayna al-hujja bi ñu waxee siqa indi nañ xujja bi mooy ne kaana xaafizan kaana euh, za dabtin kaana nangam kaana nangam loolu mooy tawsiq bi mais tashayyu bi ana xujja bi amu leen ko dem leen ngeen jàpp julli ñaari ak dem tëdd nelaw jàpp ci yàlla Abdourazaq bu murtadoon ci lislaam sax dekk chrétien Yaxya ibnu Maïn nee na du ma bàyyee jël xadisam sàkkantuma murtad bu mu ngi julli julli juróom waxul lu dul lu yonent wax ngeen ñëw naan chien chien waaw waaw sëñ Malick ñu ngi jégalu incha allah nga dugal sa beneen laaj ñu continuer waaw kay barakallahu Cheikh Baye jazakallahu anna xayral jaza wax dëgg yàlla eh, def nga effort wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla gis nga fi yulli ci xam li nga fi yulli ci histoire waaye li nga fi yulli itam ci taarix falilahi alhamdu wa sukuru nag maraajeex yi nga tudd moom boo tudd rek ubbi naa ko la nga ca wax fekk naa ko fa ba fekk fa lu ëpp sax li nga wax tey dëgëral li nga wax donte nag am na ci yoo xam fekk naa fa loo xam ni téere bi nga tudd laa ubbi waaye fekk naa fa loo xam wuute na wuute na su ma ko waxee mooy du li nga wax la waxul de mais daa indi sa wax indi waxu keneen ñaari wax yi nag ñaari yëpp ñëw ci téere bi par exemple wax ji nga wax ci Ahmad ibnu Hanbal ak euh, Yaxya ibnu Ma'in bañ leen laajee da bàyyi a bàyyi xadiisi Abdurazaq ñu ni ko ñu ni ko ñu ni ko bu génnoon ci diine sax duñu bàyyi ay xadiisam loolu doy na firnde sëkk ci li xataa chiici gi buñ ko ko jiiñee ba fekk ko muy moom it taxul yaxya bnu maïn bàyyi ay xadiisam taxul ahmad bnu hanbal bàyyi ay xadiisam buñ déggee ni texte yi waxee waaye ci même téere bi même texte bi fekk nañ ko ci fekk nañ fi itam fekk nañ fi itam beneen texte buy wane ni buy wane ni moom abdurazaq daan na wax ni fekk nañ fi ci taarixul islam bu imam azahabi texte bu wax ni wa qaala abdullahi ibnu ahmad saaltu abi abdullahi ibnu ahmad moom defe naa ahmad ibnu hanbal lay junju ni maa laaj sama baay ni ko akaana abdurazaq yufritu fi tashayyu dafa mel ne abdurazaq dafay xaabaabal ci ci am gi xaabaabal ci ci am gi mooy lan lañu ibnu xajar al asqalaani waxoon ca fatxul baari ni eh, koo xam ni moo xaabaabal ci ak ci am mooy kuy ngàññi aboubacar wala ngay ngàññi omar ndax ni jàpp nga ni aliya na leen gën ndax nga jàpp ni aliya leen gën loolu nag la ko doom ji laaj ni ko akaana abdourazaq yufritu fi tashayyu maanaam àgg na ca xaabaabaluk euh, ca njombaxtanu euh, tasayo nga xam ne foofu la la la la la rafidi tàmbalee fa qaala ne ahmad ibnu hanbal ni ma amma ana falam asma minhu fi haza shay'a ah man day dégguma mukk lu mel nii wala lu ko nuru ci abdourazaq kon ahmad ibnu hanbal dàqal na ko lu mel noonu mu continuer waqaala salamatu bnu shabib keneen la ku ni man samitu abdarazaq yaqulu man maa dégg abdarazaq mu wax bis ni wallahi man sharaxa sadri qattu an ufaddila aliyan ala abi bakri wa omar man day sama ngor sama jom sama dignité sama diine sama xam-xam sama dënn ubbikuwul mukk may ma benn espace an ufaddila aliya ala wa omar man may jël seydina ali di ko teg ci kaw ak ak omar déedéet bi itam buñ ci dëggee daañ fekk ni abdurazaq buñ ko tuumaalee tasayon waaye xanaa daa sopp seydina ali comme ni ko ibnu xajar defalee woon taarif waaye nag àggul ca xaabaabal ga ndax dégg nga ko fii mu ni man saraxa sadri qattu an ufaddila aliyan ala abi bakr wa omar